beaucoup c'est une très bonne question euh, gis nga inondation amuñu problème mu solutionné mm-hmm. parce que ñun yàlla def na am nañu ay borom xam-xam ci réew mi mm-hmm. ñu mun a régler le problème wax naa ko sànq c'est vrai que y eu des avancées il faut le reconnaître mm-hmm. parce que connaissant les problèmes des inondations de 2005 jusqu'à nos jours. Ouais, y a des quoi qu'on puisse dire l'État a fait des efforts considérables il faut le dire honnêtement mhm. parce que ku xam ginnaaw raay mhm. dem mhm. xam Médina Gounass Gounass surtout xam jidda caaroy kaw tey fi ma dëkk muy jàmm gën si Kamba nga dem Kaolack ak yeneen zone am na ay avancées pour dire vrai mais dañu ne waroon nañu am lu ëpp ci li ñu jot a am ndax ci li ñu jot a def ci alal on attendait à ce ñu am beaucoup plus de résultats que li ñu am tey léegi nag wax na ko ndax xaalis bi ñu ci jot a def ndax l'argent a été mal dépensé wala dafa am leneen lu ci xew loolu nag bu fekkee leneen daf ca xew man yàgg naa wax ne tey dañu war a def bilan à mi-parcours man toog naa ci ak njiitu réew mi waaw moom laay expliqué bi ñu defee booy liggéey ci dara dem ba mu nekk di arrivé à terme da war a évaluer mais bi ñu defee évaluation li ñu jox ci kër ne lañu am ci taux d'exécution man dama yàgg wax ne man d'accord ma ca pour des raisons lu tax parce que sept cent cinquante milliards soixante deux milliards def nañ ko ci inondation presque li ëpp ci xaalis bi jot nañu ko def pour xeex inondation ci lañu ñu créer ay bassin def nañ ci ay ouvrage créer nañ ci ay taw tawféex yaakaar ak yeneen ak yu mel waroon nañ am au moins quatre vingt pour cent wala quatre vingt six virgule et quelques pour cent mais soixante six virgule pour cent onze pour cent yi des fan la dugg loolu nag day ñëw ci sa question maanaam ñu auditer man dama ko yàgg wax le problème des inondations parce que c'est tout à fait bu ñu jëlee autant d'argent def ko ci inondation pour que mu leer ci bopp askan bi dañu war a auditer ñi képp kuñ mos a jox inondation ñu auditer la lañ la joxoon foo ko dugal de 2005 jusqu'à nos jours parce que tey boo xoolee tey li li indi problème ci askan bi lu ñu dund ñi nga xam ne des dégâts matériel humains ak leneen ak leneen bari na gis nañ ci ay famille yu bari yoo xam ne tey tasaaro nañ gis nañ ay borom kër yoo xam ne ci la feebaree ba ñàkk seen bakkan gis na ci ay fan yoon xam ne fii may wax ak yow tey amatul ñu dëkk ndax inondation nangu na seen kër loolu nag tey bu fekkee dafa am ci réew ña nga xam ne dañ leen jox ay responsabilité ñu denk ñu yor loolu noonu dafa war saa su ne ñuy saytu lañ leen jox fa mu dugg la tax mbir mi maanaam tollu fi mu toll wax naa la ne am na ay jéego mais jàpp nañ ne tey ci nii ñuy doxee tey tey ak équipe yi ma fi gis tey ñu yore structure yi may gis ñuy gérer tey inondation su fekkee ne woon ña fa nekkoon démb ñu ngi koy doxalee ni ñu koy doxalee tey gëmoon naa ne tey mën nañ am lu ëpp li ñu am tey ci région